min aseytaan irajim bismillahi irahmani irahim bokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax ci ànd beeg Ahibahil Khadim TV waaye ahiba ñi nga xam ne ni mooy wakaana xaqan nekk jàmbaar yoo xam ne tamit ràññee ngeen seen liggéey ci yoon wi ñu ñëw tey ngir di jàppale si ci liggéey bi ki bes bi nga xamne ne fi lañu tok tay ci barabu tedd bi xam ngeen tay wu am solo nga xamne mom lañ leen ci amalon muy besu magaluk darul khudus fi ci keur Serigne Mbacke Mouhamed ànd koog regroupement de daira Ahibahil Khadim li nusrati din xawim waye and ko ak sunu Serigne Cheikh mustafa Mbacke mohammed mu doon bes bo xamne nak dañ ci daral ay borom xam-xam ngir ñuy waxtaan ak ñun ci sunu jambar ja Cheikh Moustapha al Karim waaye way juró bu teel wa di sunu yaakaar ji di Serigne Touba ma du Bamba Khadim Rasoul ñu dalal oustaz Mohamed Sène mi nga xam ne jàngalekat la waaye borom xam-xam la ah, mu nekk ci rajo benn Benno FM di liggéey liggéey bu am solo tey mu ñëwoon fii rek ngir doo waxtaan ñu oustaz kon dañu lay bàyyi rek ak mbokk yi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel ci Ahibahil Khadim TV tey fii ci Touba Darou Khoudoss ngir ñu waxtaan ñu ay ay tomb yu am solo tomb yi ngi ñuy waxtaan ak bokk na ca diggante Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ak boromam waaye Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niki noonu oustaz nga waxtaanal ci Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul taxawaay ba ak digganteem ak alxuraan karim niki noonu tamit fanam yoo xam ne fanam yu mu nekk fan yu am solo ci dundam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 Euh, li nga xam ne si ni moo nekk bisu tey bii di ndokkeel Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye di ñaanal sëñ Mbacke Mouhamad suñ borom yàggal ko fi te ànd ak te boole ko góor ak njabootug sëñ Modou Moustapha gi yëpp sëñ Abdoulahi Diagne ñu ngi lay saare di saar mbooleem ñi nga bokkal liggéey bi ci liggéey bu rafet bi ngeen def ndax liggéeyal lislaam la liggéeyal yoonu murit la waaye liggéeyal Cheikh Mouhamadul Moustapha nga laajte laajte yoo xam ne yu ama am solo la mooy Cheikh Ahmadou Bamba ak alquran waaye digganteem ak boromam waaye diggante Cheikh Ahmadou Bamba ak li nga xam ne si moom moo nekk yeneen bi sallallahu alayhi wa loolu lépp sëñ Tuubaa da koo tënk ci bayit benn bayit Cheikh Ahmadou Bamba nee na hubbiya lillahi wa rasulihi wal kitab illa yaqaada suuli dama bëgg yàlla sama borom sama sama sama bëggeel maanaam sëñ Tuubaa nee na ñett yi laa bëgg mooy yàlla ak yeneen bi ak alquran ci lama yàlla defale lépp lu ma am motax toujours bo dégloo discoursam nangou gim nangou mom biko yàlla mom mu jël ligeyam yep tek ko ci yonent sallallahu alayhi wasallam top ci gëna yonent sallallahu alayhi wasallam da ngay gis Ahmadou Bamba danaan allah rabbi wa lahu kitaabi wa mawahib al aqtabi yàlla momo nek sama borom te sayuma yëkëte sama kaddu man Cheikh Ahmadul Qadim di wax yàlla سما برام لا يوخال duma ñaan ku dut moom du ma yaakaar ku dut moom du ma ci ndimbal ci ku dut moom wa suqt billahi bi waahidil qahar munsarifan anil malahi man dama jàpp ci kenn ki nga xamne moy buru nota notaakoon bi nga xamne mom mo not mbolam kawn bi khalbi wa jismi wa kulli lahu yahfizha min al mafasid seigne touba neena sama jëm ak sama xol lépp dama ko jox yàlla yàlla momay ar ci lépp lo xamne si ni lola kat dafa nek lo xamne si ni lu nit warta def la wala lo xamne ab julit waru ci tek tànkam mu def tamit lu jafe moy lillahi kulli bila waswaasin ko xamne réservé wu dara motax tax seigne touba moy référence am murit seigne touba moy référence am seigne touba bi muy jox yàlla lam ko wara jox réservé wu ci dara waye bi mu ne dan yenenbi sallallahu alayhi wasallam yit lam jox yenenbi réservé wu ci dara ndax nee lillahi rabbi allah lillahi kulli bila waswasin wa xustu moxjëla abi noasin abi noas ñi jàng histoire arab xam nañ ko ni mu melal ci wëy ak ya ca waaye Sëñ nee na jox gi ma jox yàlla sama bopp ak Yonent bi sallallahu alayhi wa di ko tagg loola tax na abu noas népp nu meloon ci araab yi gàcceel naa leen waaye am gi ma am yàlla doy na ma xaniitu billaahi anil arbaabi wa bi muhammadin anil asbaabi yàlla doy na ma te man doyloo naa ko gis nga képp ku waxoon lii ku dul moom balaa jant bee soo nga gis ko ci leneen lu dul yàlla te seigne touba nak moy ki nga xamne mo taxaw signé ben pacte bo xamne bam ko waxé ba nim fi joggé giso kenn kenn ko xamne da nga nan li wute nak lam wax ndax nee na iblisa wa jamia al mafasidi bi nga taqalikoo iblis ak i mbokkam ak i bagaasam foo jëm mu ne rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa jamia al masalihi لوتاخ لول مونا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كاتن يالا رك موكو ام ناخ فكل زي توجه لمن غير من له الامور وفعال وزمن فليس ذات وجه لفائده ونفسه بباب نار قائده كيب كو خامني جوبلنا لنين لودو يالا يالا ميغا خامني مبولم لو في نيك يالا موم موم موكو موم تي لب تي لوخوم لا نيك نينا موم دا ديف لو خامني lola lu ñàkk njëriñ la suqtaliya nafa bi xayri durrin wajaxali rab wajaxali xayra bi xayri charin nee na yàlla moo ma jox njëriñ lu àndut ak lor dégg nga walaahu yansuru nii wal xalqu tatbaxu nii fil barri wal bahri za nafin bila dararin kon suqtaliya nafa bi xayri yàlla jox na ma njëriñ loo xam ne lor waye tamit yow yàlla yow ya ma musal jox ma yu bax yo xamni si ni amut ak dara lu ko jaxase wallahi wallahi inni qillun lil ilahi hibbun lahu dun kasbin fihi ajza seigne touba neena wat nana man xaritub yàlla la yàlla sama xarit la soppeem la yit waye nak ci bir lol non lépp suñu borom subhanahu wa taala mom momako baxé ñaarelu laaj bi moy digënté seigne touba ak yonent bi salallaahu alayhi wa sallam xoola dafa ne diini tawxiidi ilaahi naasi bi sunnatil maahi munal unaasi man dey si Ahmadou Bamba sama diine mooy wéetal borom bi nga xam ne mooy borom bindeef yi ki nga xam ne nit ñëpp moom moo leen bind waaye moom yàlla yemut foofu moom sëñ Tuubaa yemut foofu bi sunnatil maahi da koo boole ànd ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne si nii moom lañ jox xéewal yi nga xam ne moo wàcc ci doomu aadama yi نهج رسول الذي نهج رسول الذي ما مثله بصر نهج به فسق بالمفروض وسنني مانام غيرم يونت صلى الله عليه وسلم ميغا خامني موم سيرن توبا نينا غير مومو امول بن غير مو ملني موم سيرن توبا نينا تي لا نيك با راو képp ku nekk ci sunna man raw naa la bii fustu bil mafruud wal sunna waaye ci farata ak sunna man Cheikh Ahmadou Bamba kenn daba maj nasaafatu sunnatul baydaa yi kaashifa ne man sama service bi maanaam li nga xam ne moom mooy sama doctrine moom moo nekk sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ani dalal wa taaba qalbi nee na waaye man ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallama laa nekk ba lépp loo xam ne si nii man Cheikh Ahmadou Bamba réalisé naa ko ci sunna yeneen bi sallallahu alayhi laa ko réalisé nga xam ne digganteem ak yenent bi bëgg gi nga xam ne bëgg na yenent bi sallallahu alayhi wa ak jox gi nga xam ne jox na ko boppam loola dafa nekk lu doy waar bi hii aruumu jamiwal xayri min maliki ci sunna yenent bi topp ci gannaaw yenent bi ci laay sàkkoo mboolee mi baax mbolami tawfiq ci li nga xamne seen mom mo nek borom bi subhanahu wa taala waaye yamul fofu dafa ne wakun amami yow yenen tibi nekkal sama kanam wakun khalfi nekkal sama gannaaw wakun wasati yéen sallallahu alayhi wasallam nekkal ki sama digg wa yami fi yamini simaali yaa rajaanaali ya sallallahu alayhi wasallam nekkal ci sama côté ndey jor nekkal ci sama càmmoñ ñew day ya yaakar gu takku gi nga xamne ne yoon sallallahu alayhi wasallam yaakar na la waaye yow yenn sallallahu alayhi wasallam sallam yaay sayidi yaa bugyati yaa matlabi yow yaay sama xememteef yow yaay sama sang yow yaay li nga xam ne si ne moom laay sàkk yow nit yi zimaami jaxaltuhu abad fii kaffi ahmada li taati samat man ahmadou bamba cheikh ahmadou bamba jël naa sama tënk bi jaayante ak yéen sallallahu alayhi wa sallam ne man fii ba may dem ci borom bi subhanahu wa taala ak sama àdduna ak sama alaxira jox naa ko ki nga xam ne si ne moom moo nekk yéen sallallahu alayhi wa sallam zimaami jaxaltuhu abad fii yaddi ahmada li taati samad waaye li taati samad nga xam ne loolu dafay wane ne képp koy àndal ci lislaam sëñ Tuubaa daf laa won ne na moom ngir topp yàlla borom bi subhaanahu wa taala juttu lahul yawma bi ruuxi wal badan wa walidayya wal walad fil alan wa waladi wa fil alan jël naa sama lépp jox ko jaayante naa ak moom waaye jotee naa ko samay wayjur samay doom sama alal ak lépp luma am lak ya nabi manazili bépp dëkk bu ma sa sanc sax def nako adiya jox nako ko sallallahu alayhi wasallam muju nak nag sallallahu alayhi wasallam def ko khadim hadra mun jaalani allah bi khadim hadratihi wa jadali bi hafsi bi hafsi hurmatihi mu jayante nak zalaltu abidan khadiman li rasuli min aama aysasin ila am rahil ci aysasin la seigne touba tàmbali ànd ak ki nga xam ne si la commencé li nga xam ne si nii mooy jaayanteem digganteem ak yeneen bi li nga bi nga xamee ne def na ko ay sës mooy atum 1301 xam nga ne 1301 ci la sos yoonu murit bi la takkee laxa saayam nag ne képp koo xam ne sax bëgg nga jaar ci yoon wi ma jaar bëgg nga ànd ak man ci ndigal gi ma yéen sallallahu alayhi wasallam ma jox yi ñu ànd waaye li am solo mooy Sëñ Tuubaa ci himma la woote mooy yitte. loola danañ ci ñëw bi ñu yegsee ci diggante sëñ Touba ak sañ Modou Moustapha ba tey mu mel ni bokk na ci li nga xam ne si nii moo nekk say laaj mooy diggante sëñ Touba ak alquran diggante ma yenent bi géej la goo xam ne loo ko xuus xuus xuus day nekk loo xam ne mënoo koo jeexal waaye diggante sëñ Touba nag ak alquran dafa nekk benn diggante boo xam ne diggante la bu extraordinaire ndax diggante la boo xam ne ni mu def alquran. nu mu dundee ak alcorane lolo nono gisso kenn ko xamné def nañ alcorane way seigne touba xola dafa ne aslamtu wajhi li rabbi bi nabi ma kitabi lazi qad saqa li gharadi ne jëlna sama lépp jox ko yàlla joxna ko yeneen bi waye ak alcorane karim motax tax mu ne kitabuhu lazi alayhi unzila huwa khalil ala man anzala téréb yàlla bi kat mo nek sama xarit mo nek sama àndandoo ci yàlla borom subhanahu wa taala fépp fu may dem man alquran lay àndal yeneen sallallahu alayhi wa sallam ay waxam aw ci xer yaar ñu ne ko mu ne ndax li wax téere la alquran la kalaamuhu laa abtagi bihi badala li annahu ala kitaabihi al adil lu yonent bi wax rek ci alquran la ko jëlee moom yonent sallallahu alayhi wa sallam lahu alaya xidmatul kitaab xidmatul kitaab murtafian bihi bila itab man day laxasaayu naa lahu alaya xidmatul kitaab man day jël naa sama lépp teg ko ci liggéeyal yeneen sallallahu alayhi wa sallam waaye jaar ci li nga xam ne moo nekk alquran waaye murtafian bihi bila itab ma yëkkate alquran ba alquran dootu am gàkk dootu am kenn ku ko mën a sikkal waaye alquran dana doon loo xam ne tamit dootu am kenn koo xam ne si nii dinaa ko may mu dut ko baaraam ndax lan atlu kitaaballaahi haysu kuntu wa inni lahu bihi sakkant fépp fu ma mënti nekk alquran laay jàng ak ñi daan nekk moom xam nañ ne fuñ ko mos a fekk alquranu karim lay jàng kon atlu kitab la xay sukunt da nga fi wax ne yaddu taqutu wa lisaani yatlu wa laysa yanhu li jihaadi xitlu ne sama loxo suma ma nekkee di bind sax loola du tere man maa ngi jàng alquranu karim kon kan kanzil kitabu wal xadiisu wal adab ni sëñ Tuubaa nee sama trésor mooy alquran ak li nga xam ne si ne moo nekk xadis waaye ak li nga xam ne si moo nekk تجين لا جمع فدتين ولا جمع صحاب لولا نك لمي تكي موي تك جوخنا القران دايوم تك نك فم كو وارا تك واي دكم بي دي يالا دولا نكو سي نيوكل داخ دك بو خامني با سو سيت لي في جانغ تي اي كامل كين خاموت نومبرام واي دك بو خامني ات مو نيك لي في موكالي تي القران كين خاموت نمو تولو واي دك بو خامني لي في نيك تي بربي ني جانغال القران كين خاموت نمو تولو سا نينتلو لاج موي سيغ توبا اي فنام يو موجو muy bés yu yéeme sëñ Tuubaa daa dem ba ci fanam yu mujj mel ni kàttanam dafa yokk pastéefam yokk gën bëggam yàlla yokk amul dara loo xam ne danga ne sëñ Tuubaa wàññi woon na ko ndax daa mage wala loolu nam bëggee woon yàlla rythme ba mu doon dox digganteem ak boromam ba ni mu fi bàyyi ko da koo yokk may wàññoo ko mel ni nag bi muy dem dafa def benn testament bu garaaw bu am solo mooy jox ki mu jox boppam yàlla ba yàlla sàmmal ko léppam waaye nag organisation bi mu def ak li nga xam ne si ni sëñ Touba réalisé na ko ni mu ko waajalee ba teg ko ci loxoy sëñ Modou Moustapha ba loola amul benn sikk xoolal wax nañ ne dafa am bés boo xam ne sëñ tubaa bi mu nekkee ci waajtaay bi daa moo sëñ Modou Moustapha ne ko demal bërëb sàngam di ma déglu te bul sori waaye talaata na nga fi ñëw waaye ci biir loolu sëñ Touba dafa ne. sëñ Modou Sa mu ne ko nag léegi dama jottali ma satala ba la ca bunt ba bi mu yëkkatee sëñ Modou Sa yëkkati satala gi xisa bu siiw la bunt bi topp ko mu jëlaat satala gi teg ko ci bunt bi dem wut lu mu gegee bunt bi doog indi satala gi mu ne ko Modou Moustapha ana nan nga def ba indi satala gi te bunt bi tëjuwul mu ne ko dafa am lu ma fa teg doo a indi satala bi mu ne yàlla nag balaa fee jëlee nitam dana am lu ko mat lu mu ko wutalee sëñ Modou Moustapha nekk ko am fit ko am jom nekk ko am nekk ko am dal nekk ko am ngor ku mën a ànd ak mën a ànd ak ñëpp looloo tax bi sëñ Touba bàyyee ko mu indi sëñ Touba Touba te xat damut muy bés bu yéeme bés boo xam ne dañ ne Cheikh Ahmadou Bamba nekkatu fi bés boo xam ne sëñ Touba nekkatu fi la ñu wax sëñ Touba nekkatu jamono 19 juin 1927 nga xëy a xëy rek koo xamoon koo xam ne nee nañ lu nekk def nañ ko fi xoolal tubaab yi ko fi doon jëli tubaab yi. 48 heures nekk na bi ñu laata am 48 heures sëñ Tuubaa dañ ne kii day xaru ndax ci la wàcc cëppeelu ci mbeex mi ne day julli ñu ne ma ngay xaru koo bëggoon faat muy rey boppam benn yoon mu ñu ko yombalal waaye bi ñu demee ba def lu nekk kooku mënaluñ ko dara kooku la tubaab yi war a xëy tey dégg ne génn na àdduna allahu akbar muy lu yéeme muy lu doy waar loo xam ne nopp attanu ko woon xel mënu ko taataan mooy Serigne Touba nekkatu ba fi yeneen yàlla Muhammad bàyyee ko ànd dajale ay rakkam boo mag ñi ko sëñ Tuubaa joxoon dénkaan bi daal ànd ak sëñ Maxtaar Bintaloo ba tiim sëriñ bi waaye xoolal la sëñ Modou Moussa wax ba mu tiimee sëriñ bi daa foon dënd bi ne ko ku gore ku am fit ku gëm yàlla moo dem sëñ Modou Moussa la mu wax yonent la mu wax sëñ Tuubaa loolu la Aboubacar waxoon yonent bi tibta hayyan wa tibta maytan yaa rafetuk dundur waaye yaay tey dem noonu lay Aboubacar wax nent bi waaye loolu la moo Modou Sa delloo nag sëñ Touba daal di koy waajal nag ñu indi ko Touba muy bés bi la yéeme sëñ Touba da sëñ Modou Sa day woo mag ñi rek ñuy daje am na ñoo xam ne bu ñu yegsee dañ na ah moom nii la ñëwee sëñ Touba nee na ngeen fekk ko Touba sëñ Touba nee na ngeen fekk ko Touba même ñëpp ne xalaf xalaf na këpp Touba loolu ñooñu bi ku ci yegsi rek gis sëñ tubaa ci melo woowu nga daal di tudd yàlla waaye mat gis sëñ Touba mat waajal ko ay ñoñam moo tax bañ koy waajal ba fajar jot dañoo bàyyi lépp luñ doon def daal nag dem julli ji ñëw daal di eggali liggéey booba nga xam ne moo nekk lañ doon taxawee sëriñ bi loola nag nekk lu am solo sëñ Modou Moustapha wuuti ko fi téye njaboot ak sëñ Tuubaa li nga xam ne si ne moo nekk daara yi nga xam ne si moom moo nekk lépp lu fi sëñ Tuubaa bàyyi woon uuf nag mbokki baayam ñëpp wut kenn am na ci njaboot ak sëñ Tuubaa gi ñoo xam ne yéex na ñoo xam ne sa sëñ Modou Moustapha doomu Cheikh Ahmadou Bamba la maanaam leeru Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la ndax ni mu leen yore woon dañ daan lekk ba noppi sax mu ne leen fomp leen ci sama yére yi waaye pasteef sëñ Modou Moustapha moo tax mu créé li ñuy wax maxtume ndax leetar bi ko Sëñ bindoon defar ko ci ndénkaanu jumaa ji ak li mu bëgg ci yoon bi ak taxawaay bi mu war a am ci mag ñi tax mu defoon ko ci di ko garder saa yu xëyee ba julli suba daal di liir ndénkaan loolu yokkaatu pasteefam yokkaatu taxawaayam ànd ak mag ñi xoolal àdduna ba àdduna daj lu dul état amul benn privé boo xam ne taxawal na lu mat 10 mètres braille amut benn privé bu ko def waaye sañ moo Modou Moustapha réalisé na loolu ndax ñu ne ko matériel jumaa ji kenn mënu ko yenn ci bopp sareet mënu ko transporter terrain rek moo mën a transporter ndax yaakaar na loolu mënta nekk waaye sañ sëñ Modou Moustapha engagé loolu daal di koy taxawal daal di fay ay employéem ba mujj gi lañ ca bëggoon am ci lu ko seen njort waaye sëñ Modou Moustapha dafa dem sax baa leen est-ce que yokk menee buri ndax liggéey bi gën a ñu ne ko lim bii nii doy na sëkk loolu Pastef moo ko maye am na benn bés xam nga boo xoolee sëñ Touba bi mu fi bàyyi ko bekkoor bu rëy dafa amoon bekkoor boobu nag dafa taxoon tubaab bi am jaaxle ne gëm na sëñ Touba li mu fi nekkatut moo waral bekkoor bi ñu ne léegi dañuy ñëw waxtaan ak sëñ Modou Moustapha pour jël koor bi delloo ko njaareem wala ñu xool fi ñu ko def foo xam ne dana gën a jege pour que bu delluwaatee njaareem dëkk bi naataat waaye bi loolu amee tubaab bi dañoo ñëw def seen délégation toog ak sëñ Modou Moustapha di waxtaan di waxtaan kenn ku nekk def sa discours ba pare sëñ Modou Moustapha di foq ay baaraamam rek bañ pare mu ne leen loolu ngeen wax ne de da ngeen di jël ku baax ki fii Touba daal di koy yóbbuwaat njaareem loola de waxuma du am waaye li ma ci mën a wax mooy sama bakkan du ko fekkee sama bakkan bi moom bu ko fekkee wut nag loolu mën na am xoolal sëñ Abdou Lahat nee na keroog fa la waaye man fa laa jaar ba lépp lu may jaayante dama naan man loola sama bakkan du ko fekk moo tax dëgg nañ ci discours sëñ Abdoulaye lu bëri loo xam ne bu wax ci sëñ bi danaa nangam de newuma du am waaye balaa balaa am day day fekk man ma faatu ba noppi sama bakkan du ko fekkee loola nag Pastef la gis nga murit ndigal dégg nga boo génnoon sax ci yeneen yeneen territoire da ngay gis naan murit ndigal kon bépp ndigal boo xam ne suñ Tuubaa da ko fee bàyyi nañ ko sàmm lépp loo xam ne si tamit da koo digle nañ ko def lu mu tere nañ ko bàyyi loolu moo ñu avancé lool kon xam naa ne loola dana day sëkk ñu ngi encouragé waa Ahibahil Xibaar te di leen ñaanal yàlla fii nga xam ne teg nañ fi seen tànk ngir yaatal li nga xam ne si nii moom moo nekk yoon wi ci xam-xam ak yeneen yi demee noonu yàlla suñu borom dafa leen ci kaw seen jot ñu ngi bàyyi xel liggéey bi te ñu ngi leen di wax ne euh, lii am na solo ndax yéen ngi tasaare li nga xam ne moo nekk. biographie sëriñ bi doctrine sëriñ bi waaye ci ay melo yu rafet ay jëmm yoo xam ne foo leen gis xemem leen ngir yar ngir taalibe waaye ngir li nga xam ne si mooy comportement boo xam ne bu correct la bu nit mën a xool nga xam ne fu ñu taxaw mën nañoo jaay yoon bi te duñ ca wane benn sikk kon ñu ngi leen di encouragé bu baax a baax nga xam ne ci biir ci biir ahibaayi xadiim ci la ahibaayi xibaar génn te loola noonu lu am solo la mooy tas information te it lu lu baax la lu am njëriñ la tey yoo xam ne mënuñoo teew ci màggal gi seen i addiya teew na seen i xol teew na waaye seen jëmm mënta teew waaye la ñu manqué ci gis ay jëm yu namm gis jëmm yu ñu miin yéen a ngi leen ciy dimbale ndax yéen a ngi leen koy defal en direct ñu di ko seetaan fenn fu nekk ci àdduna bi kon loolu lu baax la lu am solo la ñu ngi leen ci ñaan yàlla bu baax a baax wa aqiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullah wa kamilan kula maanan foo naqsuduhu ngeen jëf wa